aci am na solo donc euh, ñi nga xam ne ñoom ñuy waa Don Dem euh, Boys euh, bii mooy clip bi ñu war a def promo bi. Mhm. Mhm. donc c'est un benn clip bu bees la tu vois boo xamante ni yéen waa TFM yéen a am pratiquement. exclusivité bi ok fii ah, am na ah, ñaari exclusivité ah, waaw waaw waaw tey moom. donc tey waa Don Dem plateau lañ dëkk dafa plateau. ville waaw ville lañ dëkk. soriwul mbokk plateau waaw. donc xam nga nekk ay jeunes talent doog dugg ci aar bi. voilà lii moo nekk premier projet quoi. ok ok ban yéen ban genre musique ngeen di way. wóot man ak yow am na lu ñu bokk. xanaa billaay waaw waaw day wax muy cange ah. tawarkaal c'est bien c'est bien ça c'est bien <laughs> noonu la noonu la noonu la euh, yéen xeetu style musique moom ngeen di def. ñun bon am ñu style musical. ok wóot musique la ñuy def. ok mais lan moo leen inspiré ba ngeen dugg tey ci musique en tant étant jeune quoi. waaw dañ ko yàgg di foowee parce que nekkul musique kese lañ def def nañ théâtre def nañ danse. xam nga def na leneen ak leneen quoi artiste lañ quoi ah. parce que ñu ak si ngoom bokk fi ñu formé ñun ñëpp xam nga english club lañ nekkoon foo da ba ñu nekk booy ba maagaale ko ñu gis talent mu ngi ci ñun quoi te gars yi dañuy def ñëpp daaxu ñu ko quoi mun nañ ko ñëpp def mun nañ ko parce que dañuy woy lépp quoi xam nga dañuy dañuy dugg ci lépp waa école la woon la commencé ba ba léegi nii quoi noonu la demee après ñu dem di foo di ànd di wéyandu di yegg si conseil di woy mais pourquoi créer suñu groupe boobu xam nga rek. def ñëpp di def parce que mën nañ dem yegg foo xamante ne nii tey xam nga rek. te muy cool quoi mais pourquoi pas adduna moom dafay am looy gëm rek après loolu. te gëm nañ ne dañ fay yegg incha allah. ok am na solo donc tey jii fi ñu toll nii euh, naka la def ba enregistré son bi ban studio ak fan la ñu defalee vidéo bi ak fu ñu mën a dem pour mën ko xool kanam. bon son bi pour l' instant génnagul. Mhm. parce que dañ ko bëgg a def tey incha allah ci ngoon quoi. ok mais son bi euh, moo ko defar bit bi. ak euh, kii. Dourass euh, Diop xam nga euh, seen télé ñu lay dégg bu baax mais ñun dañoo am problème pour dégg. ok yaa ngi may dégg bu baax. Ah, d' accord son bi Hélène Kay moo ko dóor. Mhm. Hélène Kay Dourass Diop moo def vidéo bi. Bamba waaw Dourass Diop moo def bi Marie-Louise Diop moo jàpp ci production bu baax a baax. genre ñu koy nuyu tamit bi bàyyi leen douche bi <laughs> ah waa Kër Ngaaka Blindé yi tamit ah lii ba jàmm la. Ah, non waaye tamit. waaw mm. ñu ngi waajal ay projet lii benn la rek ci ci ci début bi parce que am na yeneen yoo xamante yoo gën a garaaw fu parce que lii début la rek pour ñu wane suñu bopp. ay ñu invité la ñu ne dañuy ndékki ji ndékki ji ku dugg génn keneen ki dugg. waaw waaw dëgg la yéen a ngi jënd bi ñu wax seen projet. fu ñu ndékkee ñoom moom ngaa ko ñi fu ñu parce que am na ñu nekk suñu a ñuy jàppale ñu mel ni ay Marie Louise ñoom maman moom yi waa guubi ñoom ñoom ñu leen di siyaara ak ak ak mhm. sa ah, waroon nañ teel a génn Sénégal xam nañ am na solo booy nag xam naa di ma inspiré léegi ma commencé takk ano quoi parce que waaw ngeen gilet ba euh, mais dama dul xam fu ma koy jëlee moom laay xalaat nii fu ma koy jëlee en tout cas ñu leen di bu baax di leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax luy mot de la fin bi ah, xanaa di sant ñëpp hmm. di leen gërëm aussi tamit ci euh, invitation bi hmm. plateau bi xam nga di tamit remercier gars yi nga xam ne à chaque fois ñoo ñuy jàppale comme Maskoki benn euh, Samba Fall Isam non non Maskoki la tudd ah beneen Maskoki xam nga waa plateau waa Médina Arma xam nga ku lim juum daal voilà ñuy ziar gaa yëpp. aji ñu woo Adja Koro euh, mais le temps muy ñëw ñu dem xool ki nga xam ni mooy Balla Diop. Euh, lan nga ñu indil tey ak koo ñu indil tey ox sama waay. ox waaw tonton Tafa. <laughs> nañ dem xewlu élément bi déjà daal di ñëwaat si plateau. ayca Adja Koro mën nga ñëwaale